asalaamaaleykum les internautes Asmoon TV ñi ngi am mbégte lool rek di ñëwaat ak yéen ci championnat Ligue 1 Asmoon Sport tey nag ñu ngi fii ci quatorzième journée diggante Guédiawaye FC. ak AS Pikine muy match bu am importance mën nañu wax ni derby banlieue la ñu bëgg a ànd ak yéen defar ak yéen commentaire bi defar ak bi résumé leen match bi ak yëpp wan leen ambiance bi nga xam ne tey jii tamit moo nekk ci buntu stade bi ak ci biir stade bi damay ànd ak yéen ak sama caméra jinne bi ñu koy wax Mor Fall. waaw <laughs> génneel wane sa dënn wane sa dënn wane waaw amul yooyu waaw. Ah, may ko ko. affaire bi kenn fii la. affaire bi kenn fii la. mais mais mais mais mais mais mais mais wuyu ma. mel ni dafa mel ni géejawaay bi dafa am pression ah. nu mu demee noonu. géejawaay daa tiit. Ah. dafa tiit xam na day jël 3 tey. 3-1 dañ may. Ah. naa ñaax da leen di ray deuxième mi-temps yéen. waaw. loolu yow looy wax. le problème en nekk mooy ñi wax lañ gën a mën a jëf. te ñun yàlla daa dogal jëf lañ gën a mën a. ki laaj ko kan moo mujj ci kawam. Ah. rencontre ñu def kan moo mujj si kawam. kan moo mujj si kawam. Ah. loolu affaire bi rencontre bi ñu mujj a def kan moo mujj si kawam. non non ku mujj si kawam zéro zéro lañ niil. Ah. tey géejawaay day jël. mënuñu fexe fexe ba duñ jël 3-1 ba pare naa bàyyi leen seen gaal ñu toog. atia on est là. waaw merci grand vraiment maa ngi gërëm ñaari supporters yi. waaw li ñuy def ni fair play. parce que football bi loolu la laaj. dafa laaj fair play. mais waaye naa man li may ñaax. en tant que supporter. en tant que sportif. dama ñaan beneen yoon. fédération bi war a seetaan lii. parce que lii mbooloo bi xajul fii. nañu waxante dégg parce que terrain bi fees na terrain bi dafa tuuti. pour football sénégalais. sénégalais football bi dafa évaluer léegi nañu xool lu ñuy gën a def. ndaxte parce que dig bi ñu digoon. pour ñu pour ñu jouer stade bu mag bi. parce que loolu moo indi lii. parce que parce que sénégalais lépp léegi sénégalais yëpp xale yëpp. lu ñuy def mooy seetaan football uh-huh. kon naa rafet na uh-huh. bu lii amee man dama lu peuple bi uh-huh. nu peuple bi ñëwee dama si kontaan ndax lii mooy football lii mooy tam wane na léegi comme barsa ak Real ah lii daf may neex. bu baax a baax a baax. mais nañu gën a góorlu ñu mën a sooraale gars yi parce que terrain yi dañu tuuti. te booy yi léegi léegi dañu dañu farañ. maa ngi leen di gërëm tam di leen sant di leen ñaanal gudd fan ak wér ak wérale. amiin amiin waaw wax na dëgg waaw wax na dëgg. acca looy wax yow nga ni. di classico la. Ah. di classico la Pikine mooy dirigé ba jamono neex. Ah. waaw waaw. Ah. yomb de. kon leer na. waa leer na ñu ñëw ah ba tey rek kaay kaay ñëwal. waa ñu ñëw ah mooy gagné waa ñëwal waa ñëwal waaw parce que dama gis mais tey dafa mel dafa sañ set taxaw dóor xool ko jël ko couleur bi. daf ko ñëw waaw jël ko waaw ñëwal kaay nii kaay nii mais tey da nga confiant de nu mu demee noonu sañse bi ñëw taxaw teg teg ko. waaw dañuy jàpp géej waay rek defaral ko. mu ah. jeex dàq incha allah rabbi. Ah. waaw li nga wax yow mën a de. waaw Pikine dafa pare tey. Ah. waaw. ku mujj seen kaw si yéen ñaar ku mujj gañe si yéen. kenn gañewul Ah. xale bi da ngeen def zéro zéro ma si nil mais tey moom mënuñoo niil moom ah. franchement tey moom du niil moom day tey tey kenn yow victoire rek ah. xam naa ne victoire Pikine la jëm incha waaw waaw gis nga de waaw sama grand mooy fubal mooy fubal waaw Aliou Badara Gueye waaw mooy sol numéro 5 bi. numéro 5 bi waaw. léegi si. moo si moo supporté. Ah. moo tudd leer contre waaw ah. ah. d'accord man xam la laa avant tout. ci bi billet laay wax mën ne billet billet 1000 francs lay jar ba pare ñi ñëw ne mille 1500. cent yi nañ ko teg ci yoon ko am na loo xam ne dafa rafetul quoi fii ñun ñëpp benn la ko mais nañ ko teg ci yoon ko que le meilleur gagne. mais mais li nga wax noonu ci affaire bi yi avant. dañ waxoon dañ ko lancé ne euh, ne francs la. da ngeen ñëw ba fii ñu changé ko wala. ñëw ba fii ñu changé ko billet yi 1000 francs yi di jar 1500 billet yi 2000 di jar 3000. ah mais xam nga père loolu du yoon tamit gars yi teg ci yoon tamit. loolu comme ni mu wax xam na loolu lu metti la mais communication amul lu mu mënut a mënut a lijjanti da def communication bi à temps rek bu boobaa lii du ama ah. acca ñu dem ba tey. ñu ngi ci yow di ñëw nga ñëw ci derby yëpp. waaw lii ñun ay dëkkandoo lañu lii moom du dër wi parce que géejawaay ak Pikine ku xam da xam ni benn la ma ciy woote waxuma supporteru géejawaay mais Pikine laa wax ma ciy woote fair play comprendre nga ku yàlla may ndam li ñu xam li fii la yem ci banlieue bi ba war ñuy ñaan yàlla may ñu ndam waaw. <laughs> loolu tamit dëgg la parce que tey ji nii naan ku ràcc jëmale sa kanam mais tey jii nii ni nga gisee buntu stade bi tey jii nii championnat Sénégal jotul tey jii nii ñëpp di ñëw ci championnat bi. géejawaay buy fubal bokkul ak yeneen championnat yi ak Pikine mais lenn laa si ñaawlu rek mooy tirbine bi fee waa waa Pikine ñoo ko moom waa Pikine lañ ko war a jox comme ñooñu dalal ñoom dañoo ñëw yóbbu fa seen lépp teg fa seen sono loolu rek laay ñaawlu ci affaire bi quoi xam nga ñu ngi nii ba tey ñun dugguñu ñoom dugg nañu bu yàgg placé wu woon na ni fii seen gox la te man dam leen dalal bi ñu ñëwee Pikine ñëw nañu Pikine ma dalal ñu dalal leen yaa ngi mooy dégg est légui dal ñu ngi ñaan dal yalla may ñu ndam lool dal la ci wax parce que sama ñom ñep suñu ñun ay dekkando lañu parce que man suma dom gege way la juddo waaw suma dom waaw gege way la juddo waaw ma ma ngi wote dal fair play dal fair play ngay wote parce que tay ji da nga gis match bi feul lañ ko waron def euh stade euh, président Abdoulaye wad après ñu bari na dañ doon wax ni no équipe bi ñaari équipe yoy sen supporter yi dañoo xawa ki tang ak yoy dal lay wax ci lool non non ñaari supporter yi non comme bu njëkk ba ak lii du nawetaan lii championnat la lii du nawetaan bu nekkoon nawetaan la sax ñuy wax ñu ñaari ay sam lii championnat la bokkul ak mënoon nañ ko fa yóbbu mais ak fii fa yëpp benn la fii benn ñun fii moo ñu gënal sax pour ñëpp mën a ñëw. waaw ñu waaw ñu xaar si 2-0 nag. mais mais 2-0 waaw d' accord 2-0 dafa war da danga am dimanche bi am derby dimanche bi nu ñëw tamit nga amaat beneen xew-xew. waaw loolu maa ngi ci woo pikin yëpp. dam cee lancé woon benn appel mooy woon ni tey bu soobee yàlla bu dimanche passé lañ may mujjee gis may ànd ak mbër parce que tey maa ngi licence promoteur comme rent DKR ma tëgg quatre journée doy na nag si ànd ak ay mbër wala di gunge ay mbër parce que tamit damaa war a tëgg ay mbëru géejawaay ay mbëru parcelle pour nga xamante ne boo si tëggee ay mbër dinañ la am benn kóolute bu ñu la jox loolu rek a waral loolu ma nekk sama bopp parce que soo xoolee sama journée yëpp damay jël ay cinq mbëru géejawaay di leen boole sama journée te Pikine wala di jël ñaari mbëru pikin loolu tax bokk na tamit li tax ma bàyyi topp ay mbër bu ëmma seen bëree ak lu mun di xew ni dootuma gisati may topp mbër loolu moom giñ naa ko te waat naa ko am mbeuru 100000 mille ba mbaru cent millions mindeef dotul amati pap sar di top mbeur wa ñëwal wa parce que limu wax lu am importance la parce que promoteur la léegi parce que nee promoteur la ci bir ay kàddoom nee parce que dafa bëgg mbeuri wolu ko lolo tax nak mu bëgg a di and ak mbeur wa lolo dañ tam dañ ko ci jaajeufal di wax ni rek ba léegi jeexagul acca la ñu dem waaw. waaw ma naa des trafiquants. waaw parce que dama dégg ñu naan bien dañu waxoon 1000 francs ñu ñëw fii mu nekk 1500. non non non. non billet 1000 francs moo fi am. billet billet 1000 francs. ñoom ñoo koy jaay loolu c'est loolu c'est loolu. loo ma ne ñun ñun billet. billet 1000 francs 2000 ak 3000 la ñuy jaay annexe loge mooy 3000. annexe loge mooy 3000. loge loo loge loge loge loge simple c'est 2000. waaw 2000. ak 1000 francs découverte jeex na. mais parce gis léegi gars yi ne da ngeen ba fii billets yi doon jot 1000 francs ñu ne leen léegi 1500 la. non non non non non non loolu kenn. Ah. loolu moom leer na ma du si gisee bi. Ah. te loolu man loolu laay loolu ma génn. waaw loolu moo tax ma génn loolu. ñiy rëbb ñi jaayaat parce que. ñun 2000 lañ jëlee. moom laa ma ne. Ah, man maay organisé. dañ maa signalé loolu dañuy wax daal ah. man maay organisé dañ ma signalé loolu. ma woo ay ñenn pour ñu génn pour xool loolu pour woo commandant bi. lool kay maa fekkee ba nga la laaj. mais moom li mu wax tamit déggoo li mu wax. waaw waaw. gis ki koy jaay da koy gis léegi. ah gis ku koy jaay. kii moomu téye maa ko téye maa ko téye demal demal demal demal ak maa ngi ak euh, le premier capitaine Guédiawaye football club Mahmoud Diallo ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi fay maa ngi nuyu téléspectateurs yi. di nuyu sama caméraman bi ak sama présentateur di nuyu ñëpp daal incha allah. waaw ñi am mbégte ñëw toog nag gis seen marché bi tey nii gis nañ marche bi tey mën nañ wax ni banlieue bi yëpp ñoo génn tey. Hmm. waaw kontaan te mbégte rek parce que lii moom ñun ñëpp ko doon rêvé jouer un match derby suñu dëkk loolu moom lu important la di ñaan yàlla tamit yàlla may ñu ndam bu rëy ci kaw Pikine incha rabbi waaw. parce que ñu gis. manam sen match bi ngeen fi mujjee am da ngeen def defena naa defet ngeen fi jëlee tey jii nii est-ce que am ngeen ben jangat bo len ci def parce que dañu gis à domicile souvent da ngeen am ay difficulté hmm, waaw lolu jangat yu bëri la parce que ñun ñëpp euh, ba ma ci jeexee après ñun concédé wu nañ suñu biir waxtaan nañ bu baax que ne lolu mom inshallah rabbi rabi promettre naa ko gaay na ni defet yoy jeex na ci tey parce que lolu waxtaan nañ ci bu yag yag ah. yalla baax na incha allah rabi. tey nu bi di demee tay loo ñu ci wax ci match bi tay demee dara match bi engagement la rek ak gëna bëgg rek

Donc on y va avec beaucoup de prudence. Ah, c'est-à-dire, l'essentiel c'est de sortir avec au moins un point, si on ne peut pas avoir les trois points. parce que gis Pikin, Pikine boo ci retour bi la deuxième match euh, en retour à hein, ah, championnat mais gis Pikin, Pikine am beneen xar parce que est équipe agressive. Ah, bien sûr xam nga en début de saison coach signalé au moment où on faisait de petits de petits matchs quoi mais ben, c'était normal parce que notre préparation dafa xawoon escamoté bon par rapport au temps bi ñu quoi mais maintenant avec le temps on voit que l'équipe équipe bi à commencé jël forme et c'est normal par rapport aux les jeunes arrivés ñi nga xamante c'est des nouveaux aussi on a eu de très jeunes joueurs aussi cette année et c'est normal mais avec le temps on voit que l'équipe équipe commence à compétitive hein. et c'est normal. mais tey xam ngeen ni tey match derby la yéen ak euh, Guédiawaye FC xam naa ni du yomb tey tey de que nga ma wax noo leen ñëwee bon on en début de de de en début de reportage dans ces matchs là il faut être tranquille il faut être avec beaucoup de sérénité parce que lu ci bëri ci fait de jeu en match Le lu ci bëri ci ay situation personne n'y attendait les les jouer on a une nañ on xaw a prudent laisser l'arbitrage arbitrage ci décision ba pareil, ñu sur tous les coups C'est un match qui se gagnera sur des détails parce que personne ne veut perdre euh, parce que gis nañ Pikine souvent en deuxième mi-temps si lay gën a gën a que en première mi-temps et puis si le côté attaque bi tamit dañu gisoon ni tamit seen attaquant yi peut-être amuñu woon benn présence bi trop quoi ci seen ci seen match phase aller yi quoi. waaw mais wax naa parce que euh, on était à la recherche. on est-ce que am ay renfort tamit. ah bien sûr am a ay renfort déjà voyez que ni Cheikh Mbacké ñëw déjà tey mooy son premier match il est convoqué te loolu bokkoon na ci lu ñu xawoon euh, amal tuuti jafe un meneur. Donc Montar, on est très content de sa, de sa venue. Ah, il y a Gassama qui a été libéré par Guilla Full Club. C'est un relayeur. Donc là aussi, il va permettre sur le plan offensif, nous avons une opportunité. Mais je pense que par rapport à les en deuxième temps, parce que comme nous Boubacar Nia, on peut un match. comme nous nous on un match. Mais on préfère terminer fort les matchs que de démarrer fort. Ah, donc je pense que nous, terminer fort les matchs, parce que ni moo ëpp garanti que que di terminer faiblement. waaw ba tey nag dañuy ñëw ci football local bi parce que tey ñii gis nañ tey championnat bi. tey jii nii lii gëj na am. waaw tey jii nii ban appel ngay def ci loolu. waaye bon déjà xam nga match bi ñu ko programmé woon fële à Diamniadio ça prouve que ni rek la banlieue dafa am un rôle dans le football bi nga xamante ni dañ ko bëgg a moderniser soxla spectacle te xam nga boo wax spectacle mënoo te banlieue moo tax sa match là les supporters dañ ko war a gérer ba nga xamante ni du am benn débordement.

ah waaw loolu moom source de motivation la de parce que ngay football moom dëkk bi ñëpp génn moom loolu moom source de motivation bu mag la derby banlieue la mooy loolu gars yi fay génn c'est normal waaw. Ah, c'est normal tey nag loolu may wax ci match bi parce que Guédiawaye FC ak yéen seen aller 0-0 la tey nag gis ngeen match bi derby ba pare ngeen fekki leen ci seen biir stade tey ji lan nga mën a wax ci loolu. ah man li ma ciy wax bëriwul mooy que ne match bi match la comme yeneen match yëpp. non mënul nekk moom. non si la comme mënul weesu match. waaw 3 points nga fi jëlee rek wala 1 point. waaw mais léegi kon nga nga ñëwee. non man kurul may sa bopp lu la yàlla may nga jël mais ñëw ma pour ay jël ay benn point dem dama ñëw pour jël ñetti point suñ ko mënee jël jël ko dem waaw. kontaan nañ ci yow. merci Niang <laughs> jaajëf Guèye merci.

ndax Fally Faye moo tax stade bi mel nii boo moon xelu nit ñi am ni violence rek stade bi du ni mel nii donc nit ñi nañ jàpp ni football d'abord fo la spectacle la yéen ñii bëgg ni football stade amitié daan na am am cinquante mille spectateurs ku nekk football ñibi donc loolu lañ bëgg dellu si waat aussi fii Sénégal xale yi xam ne lii fo la agréé donc ligue bi su loolu la inscrire foo agréé dans un esprit de fair play de fraternité xam ne nag fii banlieue bi ñoom ñëpp benn lañ Sénégal ñëpp benn lañ tous les jeunes sont égal dignité ci sportif. sportifs ñoom ñoo bokk lu ñuy bëgg bëgg bëgg mooy football am ci ndam Sénégal am ci ndam ñoom aussi ñu am ci ndam mën a dimbale seen ay waajur c'est ça l'objectif final. waaw loolu lu rafet la parce que tey jii nii match bi dañ ko programmé woon fële ci euh, stade président Ablaye Wade tey jii gis nga supporters yi ci biti ñi ci biti ñoo ëpp ñu nekk ci biir tey jii nii ban disposition ngeen jël pour ëllëg. déjà euh, ci sécurité.

xam nga euh, c'était un symbole pour les deux équipes c'était un symbole pour les deux euh, les, jeunes joueurs qui sont à Géjaï comme à Pékin. mais aujourd'hui ce qu'on peut dire également c'est rawna rawna rawna Pikine donc un esprit de fair play dans un dans un euh, avec un match plaisant le ñi ñuy ñaan agréé football local yéen ñëpp ngeen jàpp ci et c'est ça l'objectif. waaw mooy ñu ngi ciy jàpp parce que tamit boo tamit nga def benn appel comme ni LONASE def ci Ligue Pro yeneen sociétés yi mën a jege club yi ci côté sponsoring. xam nga déglu naa euh, Augustin Senghor match Jaraaf kon euh, euh, génération foot mu ne état bi non seulement war na leen jàppale ñoom fréquence télé mais également li LONASE def yeneen sociétés national yi privé parapublic et public ñëw jàppale équipe yi buñ buñ Vous avez 10, 15, 20 sponsors, vous agrégé, vous un mana pour le club. Vous avez 4 millions, 5 millions, 6 millions, 8 millions, vous les permis d'amorcer un virage sur le plan financier, de démolir l'équipe, de vous le président du club. Merci beaucoup. monsieur le ñu ngi ziar. tey ban commentaire ngay def ci match bi tey. waaw am contentement rek ci match bi nga xam ne moom moo joué mooy dox ci diggante Guédiawaye football club mi nga xam ne mooy suñu équipe ak AS Pikine AS Pikine ku ko wax xel yëpp dem ci géejawaay parce que Pikine moo jur géejawaay waaw ñun nag yàlla dogal ñu jiite géejawaay nekk maire bi ñaan yàlla yàlla mooy ñu ndam waaye lépp ñu football ko rek ci fair play waaw te match aller ba ni meloon moom la ñaan yàlla rek bi tamit mel lépp ci sportivité. dëgg la mais tey jii nii mën nga wax tey ji nii dañoo gis LONASE ñëw di jàppale football Sénégal Ligue Pro tey jii nii boo doon def appel euh, société yi pour ñu jàppale club yi loo ciy wax. waaw xam nga société nationale yi nag boo xoolee ba ci biir état bi dafa xaw a fay ci mission am société nationale yëpp dañ leen a war a wax ñu ñëw jàpp ci équipe yi ñëw jàpp ci équipe bu Ligue 1 ak Ligue 2 yi ba ci national loolu moom mooy jëmale football bi kanam mais ku xam footballu Sénégal dafa metti mooy amul bu société nationale yi ñëwulee jàpp euh, liñ bëgg ci club bi daal bëgg a am ay TP Mazembe loolu mënul nekk il faut que nationale ñoo jàpp ci. tey jii question bi rek mooy tey boo doon jàppale tey jii nii euh, centre de formation yi nga xam ne tey jii moo nekk Géejawaay tey jii nii ban programme nga am ci loolu ci équipe yi nga xam ne tey jii nii dañoo bëri fii ci commune ci commune u Géejawaay bi. waaw xam nga ñun moom ay sportif lañ. nous sommes du mouvement associatif. nekkoon nañ fi jour ci stade bi nekk nañ fi tam président nekk nañ tam Géejawaay football club boo tax ñun moom li ñu mooy petite catégorie loolu mooy jëmale football kanam bépp dëkk wala équipe bu lay wax na la ci équipe senior équipe A bi dong man laay visé kooku day ko xool xamal ni vision bu gàtt la am waaw. jërëjëf monsieur ngi lay ziar. maa ngi leen teel a ziar. di wax rek ñu am mbégte tamit gis LONASE tamit di jàppale football Sénégal. waaw vraiment ñi euh, kontaan nañu lool lool lool ci LONASE parce que non seulement LONASE dafa innové. mais bo xolé l'onage nga xamni depuis 82 84, ñu ngi ci football bi donc libertu ñu mu ñëw nak def lo xamni nak lu gëna a la tay moy déjà fexé ba équipe yépp équipe première division yëpp ci nek mu jox la 4 millions ci début ci fin de fin de fin première période bi nga xam équipe yépp son mu ne équipe de deuxième division yépp n'a leen jox 2 millions dina jox champion bi te ñëwagul dinaa ko jox 15 millions bo lek également lu mu jox ligue bi loo xamni gaay gars yi waxuñu ko donc LONASE mi ngi jappalé ñu ñëwaat mu ñëw innové ni te euh, danaa jël ay junior wala ay supporters def série penalty ci mi-temps bi ku gagné dinaa la jox 100 billets nga dem seetaani match nga euh, Égypte euh, Sénégal Égypte 50%. billets donc amuñu fayam ñu pour que véritablement mu tâche d'huile société. football parce que football mais madame régulation sociale la gis nga l'équipe nationale coupe d'Afrique nous avons mel kenn donc vraiment kontaan nañ bu baax ci LONASE. merci merci beaucoup. Merci.

ndax barki démb la woote nit ñi fee bi jox équipe pour Ligue 1 bu ci 4 millions jox équipe pour Ligue 2 bu ci 2 millions yëkkati fonctionnement jox Ligue Pro signé partenariat la fédération né ku gagné championnat bi ren ak lu ko fédération mën ti jox wala Ligue Pro mom dina ko joxat 15 millions. foog nous né bu les sociétés ay société nationale yu fukk yu melni ni def noonu day gëna football bi té football dafa soxla comme koom nak société yu melni ni ak ñeneen dañ ci wara a ñëw jàpp ci ndax président club bi sonn nañu sonn nañu jàpp ci seen investissement faaw ay société ñëw jàppale leen waaye nag gàcce ngalaama yéen mi presse yéen mi di wone liggéey bi football Sénégal di def 0 but partout. Match important pour la 14e journée de la Ligue 1 Pro. Gel gel gel. tay ban commentaire ngay def ci deuxième mi-temps bi ci match bi sax lay wax. wa mais maa ngi doon ziaraas waaw mais xam nga rek comme euh, match derby la donc euh, donc après xaaroon nañ ni donc ay euh, donc qui bi metti la quoi match bi metti la donc lol tax ken bàyyiwul dara quoi ñaari ki yëpp Ken mayul Ken dara quoi wa parce que gis nañ en première mi-temps équipe bi tamit bon mi ngi don football mais en deuxième mi-temps gis nañ surtout de minute yi mujj yi Pikine xawna la gagner nak

bo gisé maa ngi insister sax di wax boy jaar lañ ci côté jaar lañ ci côté parce que ak góol bi ñam donc góol mënu góol la donc du bal yi nga xam da ngay da lay gis ngay door nga japp ko il faut nga dem ba ligne de fond nga retrait pour mëna duggal dugal ko bii waaw tey ji ban jangat ngay def tay ci équipe bi parce que ak euh, match bi ngeen jé tay ji nii boo leen doon ratifier encore équipe bi tay ban ratification ngeen def encore ci boy waaw euh, gëna euh, a xam bis quoi mais li may wax xam bis xamé bis waa nga bis da bu nga xam yow peut-être euh, euh, euh, mun naa am benn yoon koy joué ci sa biir donc boo gisee ne stade bi feesee tout ça ñëpp ñëw daa que ni jour bi ci boppam am na foo xam foo yeggee dafay surpassé wu parce que say supporter ñu ngi fi di la pousse di la pousse donc ba un moment nga sax jël nañ risque ba nga xam ni dañ doon bëgg a joué gisoo may nañ ay xam nga donc may nañ waaw waaw donc may nañ ay ay but quoi laa bëgg a may nañ ay but quoi waaw. merci. ok merci. ci ci marché bi. waaw comme ni ko ñëpp doon xaaree rek ñun tamit on était bien conscient ci ci public bi ak euh, engouement beeg lépp mais comme ni ko coach waxee briefing rek ci ñoon newul ci public beeg lépp ñun li ñu ñor mooy ambiance terrain bi ak les 22 acteurs te géré nañ ko bu baax. yàlla nag mooy maye ndam mooy xañe ndam mooy partagé ndam yi tey ji partagé na ko suñu diggante dañ koy sant yàlla bu baax di concentré suñu prochain match contre Douane incha allah. parce que dañu gis équipe bi tamit à domicile ba léegi li ñu bëgg équipe bi joué ko ba léegi joué ko parce que xool nañ seen victoire yëpp ci biti la parce que question bi sax boo xoolee dañ ko répété lu bare bare bare tey ji nii lan ngay wax ci loolu. waaw mais comme comme ni ni ko waxee rek football moom dafa a doy waar waaw ñun ñun ñun suñu boppam ñun ñoo gën a bëgg victoire

donc en tout cas maa féliciter félicité ñaari camp yëpp di félicité aussi supporters yi nga xamante ils étaient venus nombreux pour cette ancienne équipe donc euh, jàpp naa ne c'est un bon point donc derby moom même ni tout le temps dafay metti dafay jafe donc mais jàpp naa ne gars yi defoon nañ def nañ prestation bu bu yanu Mais man Tegi, naa ne tey jii su deux trois buts à zéro ci deuxième période bi kenn du wax mais bon. Euh, c'est comme ça dañuy recommencer ñu liggéeyaat rek. bo xamné en deuxième mi-temps match bi waroon na jeex waroon ngeen ko gagner waaw waaw en deuxième mi-temps mënoon nañ gagner match bi bu ñu efficace woon tuuti mais bon occasion yi bëri na raté yi bëri na mais bon mënul ñàkk quoi parfois da ngay manqué réussite dañ koy gëna liguey liggéeyaat rek prochaine prochaine fois ñu ram ci réussite quoi. parce que gis nañ la en premier mi-temps nga mel ni daf nga jeu excentré gauche en deuxième mi-temps ñu gis la nga jégué attaque bi. waaw waaw premier mi-temps bi dama demee démarrer côté gauche à deuxième mi-temps ñu rectifié comme deuxième avant-centre waaw choix bi la rek système bi adapté pour ma pour ma man adapté adapté aussi système am rek a rek parce que euh, deuxième mi-temps première mi-temps foofu mais comme tay Pikine euh, match bi ngeen euh, comme c'est deuxième mi-temps bi li ngeen ci raté est-ce que du non ay regret ëllëg parce que match a gagné la won wa mën na don ay regret ëllëg bon comme ay jangat lañ ci jëlé espérons mu baña don ay regret ëllëg prochaine fois ñu gëna am efficacité deug le premier mi-temps bi boo seetloo ñun ñoo app won vent bi. mais dañoo xamone ay quelques difficultés pour pour jouer quoi mais heureusement deuxième mi-temps bi ñu ñu contre vent bi ñu ñu mëna jouer def rectifier def deuxième période bu baax eu des occasion mais bon on manque de réussite mais bon prochaine journée je vais rectifier Inch'Allah. parce que dañu que tamit les supporters yi ñëpp qui ñëpp yaakaar noonu ne peut-être tension mais fair play plein plein la ñuy wax sax tey ci match bi. waaw comme match aller bi ah ni ñu ko joué woon ci fair play retour bi appel boobu la ñu lancé woon avant match bi rek te sant yàlla supporters wuy nañ ci day wane ni banlieue bi ay nit yu civilisé ay noble ñu ngi fi dëkk quoi ay gars ay nit yoo xam ne am nañ esprit esprit de dépassement xam ne dañuy xam ni li match de football la rek quatre-vingt-dix minutes lay durer après day jeex quoi bu jeexee ñun ñëpp presque bu ooseeloo ñëpp xamante nañ Pikine Guédiawaye presque benn. parce que lii Lima noonu la diggante Pikine ak Guédiawaye moom nii la mën a demee nañ ko football ci fair play rek ku mën gañe. tey jii nii ban commentaire ngay def tey mën nañu wax ni commune Guédiawaye ñoo génn. non fu mu ne nii kañ li ñu war a wax mooy footballu Sénégal suñu championnat local bi euh, mu nga suqale ko bu baax a baax a baax je pense que ni loolu ndam la et satisfaction la boo xamante ni état bi war nañ ci gën a mën a jàpp ligue bi gën a mën a góorgóorlu ak fédération bi ñu gën a suqali football local bi te incha allah am nañ yaakaar ni président de la république dinañu dégg te dinañu dimbali. parce que gis nañ tey li nga def daal mën nañ wax ni da joxe le bon exemple parce que gis nañ ni nga def ak ak Pro tey jii nii ban appel ngay def ci yeneen sociétés yi ak club yi. waaw mais non yeneen société nationale dañ ci war a jàpp man li may proposé mooy dañu war a créer un fonds boo xamante ni un fonds de soutien au sport boo xam ne société nationale yëpp at bu jot. président daf lay wax nga dugal tant de millions comme ça ñu séddale ko sport bi yëpp je pense que loolu noonu buñ ko defee dina mën a régler problème yu bëri. mais gis sa bon à tey jii nii mën nañu wax ni amuñu a jouer est-ce que jàngat ngeen ci loolu ngeen fi mujjee am. waaw waaw loolu seetlu nañ ko parce que boo xoolee suñu trois am yëpp fii lañ amee Guédiawaye bon loolu je pense que ñu ciy liggéey ak staff bi et baax na daal. waaw merci président.

la phase animation qui suit la transition doit être longue et intense, avec pour objectif de désorganiser l'adversaire. La règle, c'est au moins de 15 passes pour rassembler la majorité partie des jours. Euh, animation offensive il faut que nous ayons boy la organisation offensive Si nous avons une organisation nous avons bëgg organisation def aussi damay gis deuxième mi-temps bi mu ñëw bu ñu heure bu ñu yoree bal bi dañ koy perte parce que Pikine bobu mi ngi def contre pressing buñ ko Pikine bu perte bal bi daf koy récupérer wa ci cinq secondes parce que football football dalay wax ni la dans le football moderne il faut anticiper la perte ou la récupération pour d'avoir toujours un temps d'avance aussi tamit football buñu ñu yoree bal bi bu ko perté dañu wara dem à la reconquête du ballon buñ ko buñ ko récupérer ba paré dañ koy reconduire reconduire bobu nak mom lañ leen wara jangal buñu démé à la parce que buñu def pressing dank lañu def légui buñ ko récupérer ba paré nan lañ koy tassé Pikine amoon nañu problème ci moment bobu mais ñi ngi doon def contre pressing buñ ko perté dem récupérer ko aussi Guédiawaye football dalay wax ni la. anticiper la perte du ballon dans l'action offensive consiste à garder une organisation défensive derrière la ligne du but donc loolu dafa am solo tant qu'il y a des pressions ultra qui sont zone wadi pour faire ralentir la progression il y a une défense en sécurité parce que l'équipe bu pertee bal bi premier défenseur est mooy les attaquants il faut que nous xam parce que damay gis nous, bloc médian la ëpp li ñuy def bloc médian c'est-à-dire ñoom dañuy bàyyi adversaire bi di préparer di ñëw seen kaw te football il faut ngay mën a alterner ñaar yi di def pressing ultra offensif fekk ko ci défense bi des fois nga def bloc médian. mais li nga wax d'accord loolu bon wax nga norme yi ci football mais gis nañ tey jii nii ak mu mun demee rek Pikine boo xoolee match bi moo ko moomoon en deuxième mi-temps bu ko dóoroon 3-0 kenn du moom moo ko moomoon en deuxième mi-temps parce que Pikine xam nañ ni tey Guédiawaye mën nañ ne 100 70 moins cent fi donc ñu ñëw remonté seen bloc ak seen bloc ci kaw yokk ay attaquant yokk ay flèches ay joueurs du gau donc jeu bi gën gau tu ci ñoom xam nga créer ay décalage parce que football dafa am trois façons déséquilibre yu ci am a le déséquilibre total partiel et inverse gis nañu Pikine jéewatuñ certaine conservation déséquilibre partiel la inverse def dañuy jouer zone bi jóge fii zone bi jouer verticalité parce que football pour nga pour nga créer des équilibres il faut que nga jouer verticalité wala wala jeu horizontal parce que lolu mo am ci fool pour nga yegg ci camp adversaire bi parce que quand yi sax pour nga yegg fa il faut nga jaar ni wala nga jaar ci côté wa lolu loolu lañ naan jeu oriental wala jeu verticalité lolu motax football H V la horizontal at euh, Euh, vertical loolu dafa am solo. dëgg la am nañ mbégte ci yow maa ngi ak Tafa le philosophe waaw ñu am mbégte loolu nag ci ñëw ci taxaw se disponibilité. Mm-hmm. parce que lii mënoon na mënoon na ñaax mais def nga ko kontaan nañ ci yow. derrière Guédiawaye waa café gi derrière Guédiawaye waa café gi am nañ mbégte ñu ngi kan baabakar Mame Bokar Ly waaw Mame Bokar supporter café gi ah café gi derrière Guédiawaye. tey looy wax loolu nga gisee match bi mais man dama am lu ma metti ndax dama nekk. damaa nekk. waaye poche base bi. ñu reprendre. ñu waaw on s'en fout débat day jëlaale café Demba grand grand mais ki mais après message mu waaw après nga ñëw wa taxal ñu pare après après après après waaw mais ma ñëw après nga laaj mu koy Te moun mou av, waz de geyal la, mou se bi moun te inyo set an ti, gèd na kou gisan, ki foupol ki chanpen nan Senegal. Paske li mbek te la. parce que dañoo xool tey xam nañ ni tey euh, banlieue bi ñëpp a génn muy Pikine di Géejawaay kenn desul ah personnalité yi ñëpp ñëw marché bi tamit wuy na comme li ñu doon séntu ci marché bi tamit gis nañ ko parce que ñaari équipe yëpp joué nañ gis nañ Géejawaay joué benn première mi-temps bu baax mais en deuxième mi tamit équipe bi bon peut-être euh, euh, li ñu doon séntu ci moom gisuñu ko ci en deuxième mi-temps tamit gis nañ comme li coach bi di wax rek. bu mu rectifier gis nañ Pikine tamit gën a offensif ba pare gën am benn engagement parce que boo xoolee duel yëpp ñoom ñoo ko doon et puis créer nañ ay occasion de but yoo xam en deuxième mi-temps waroon nañ mën a gagné euh, Guédiawaye ci 2 buts à 0 wala 3 buts à 0 parce que gis nañ loolu mais dañ leen di wax rek ci Asmoon TV révivificateur des valeurs quatorzième journée le woon tey ci euh, Guédiawaye ak ak Pikine muy match bu amoon bu mu neex sax match bu am engagement ñu match nil 0-0 dañ leen di wax rek nii rek lañ koy defee chaque jour di leen wax rek dañ leen di jox dig daje ci quinzième journée ci Asmoon TV révivificateur indicateur des valeurs télé bi nga xam ni promouvoir le championnat sénégalais moo ko tax a jóg ak Ligue de di wax ni rek dañ leen di jox dig daje ci beneen journée incha allah jërëjëf.